ci solos bis bi waaye ñaareelu mbir bi waral bis bi itam mooy niko ñu bari xamee am na benn dawra takk wii nii ya boo xam ne Touba ca kanam moo ko organisé woon ci kilifteeful lajna almiya wa saqaafiya bi nga xam ne moom moo nekk ci biir Touba ca kanam doon defal formation di yokk capacité téeméeri jàngalekat alquranul karim ak ñeen fukk loolu ñu ngi ko doon def ci diirub juróom-ñetti ay bis ñu tànnoon ñeenti matières yoo xam ne dafay dimbale lool ci ku yëngu ci wàllu jàng ak jàngale te dafa yell lool ci mu xam ca dara wala mu xam ko mooy almu nafs psychologie turuqu tahfiz tahfizul quran al karim ak idaara madrasiya ak tajwid hadaf hadaf bi taxaw ñu taxawal loolu nag moom mooy yokk doole rek ñu yëngu ci alxuraanul karim ndax formation dafa am solo lool lool lool ci nit ki yow rawatina nag koo xam ne moom dafay forme ñeneen dafay jàngal ñeneen dafay yar ñeneen formation am na solo ci ñëpp waaye mi ngi ëppati solo nag ci ñiy jàngale alxuraanul karim ndax ñoom téere bi gën ñoom ñoo koy jàngale kon lépp lu gën a yombal seenu doxaleen lépp luy tax seen liggéey gën a jaar yoon lépp tax seen liggéey gën a yomb am na solo si ñëpp waaye ci ñoom la ëpp solo ndax ñoom téere bi gën koy jàngale loolu moo tax Touba ca kanam tànnoon ak ñeent fukk ngir yokk seen xibra yokk seen formation ci wàll googu ñu yëngu xam naa bala ñuy sore ci wax ji sax ñoo ngi jéggulu ci bis bi ñu woote ndax ku ne xam ne bisu jàng la waaye ñu xam ne xat-xati màggal gi ak liggéey yu njatt bari lool rek moo tax amuñu benn pexe ba tax ñu def ko ci bis bii waaye tam nag ñu jàpp ne ba tey lii génnut ci jàng jàngale ba tey kon effort yu baree bari la Touba ci kanam def ak lañ na almiya wa ngir taxawal euh, séminaire boobu te bu fekkente ne lañ bi ak Touba ca kanam ñi ngi def jéego yooyu dañ koo def sukkandiku ci xam guñ xam wàccuwaayu alxuraan ci borom dëkk bii ñu nekk xam guñ xam wàccuwaayu xam-xamu diine lislaam ci borom dëkk bii ñu nekk loolu yaakaar naa jëru sax ñu ci tudd dara ndax ñëpp xam nañ ko ku nekk xam na fi alxuraan tolloon sëriñ Tuuba ku nekk xam na fi xam-xamu diine tolloon sëriñ Tuuba doy na sëkk misaal bay bi sama ginnaaw nga xam ne mi ngi doon ñaan yàlla mu def dëkkam bu mu nekk maskana taallumi da ban la ko wax ba faww na sax loolu na sax def ko mawdi al fikra def ko mawdi al tafahum def ko mawdi al def ko maskan al taalim def ko maskan al taswib tasyub ci la formation yi di dugg def ko maskanu tafhim baat yooyu mu jëfandikoo yëpp daanaka génnut cadre jàng ak jàngale mu doon koo xam ne moom borom dëkk bi jàng ak jàngale xéewal la ko jàppe woon alayallaahu bi taalimi te yëmut ci jàngal ñi kese waaye leen jaahilan di wa za mi damay jàngal ki xam jàngal ki xamut ki xam na koy jàngale mooy defal ko ay formation xam-xamam gën a jaayoo mu gën ko mën a exploité wala bu fekkee jàng na ba xam lu bari te yaruwut nga yar ko kon xam gu Tuubaa ci kanam xam wàcc waaye xam-xamu diina ak alxuraanul karim ci sëriñ bi ak fi mu ko tegoon moo tax liggéeyam du rek wàllu social ndax loolu baax na lool ndax moo dund gee soxla nañ ko waaye tam nañu boole ci wàllu tarbiya wala pédagogie te la ca jiitu mooy alxuraanul karim ak xam-xamu diine kon ñoo ngi sant mboolem ñi nga xam ne bokkoon nañ ci dawra boobu waaye di dalal gan ñëpp itam jàmm di leen wax ahlan wa sahlan wa bi bikum di sant itam ñi participé woon ñëpp ci seenu iltizaam ndax seetlu nañ istiqbaal boo xam ne wala iqbaal boo xam ne iqbaal kathiif la ci bi dawra bi tàmbalee biñ ko lancé rek na dañuy bind ngir ñi bara bokk ci dawra bi appoon ay bis ci ñetti fan la lim bi mat téeméer nit ak ñeen fukk nga xam ne ginnaaw bi ñu bare bari ñëw nañu bëggoon a bokk place fees loolu nag day wane ne kon mbir mi ñor na ñi ko doon defal te itam yàkkamte woon nañ ko te bëggoon nañ ko kon loolu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax ndax loolu moom lañu yéene woon ba tax ñu taxawal ko iltisaam gi itam nga xam ne ñëpp dañoo respecté woon heure yi di ñëw heure di ñëw ci bis yi ak ku xam ne it yi baree ngant yi loolu tam ñu ngi koy taqdir bu baax a baax a baax waaye itam di cant ñi doon formé ñooñu di xam le ne insha allahu taala dawra yooyu nekkut luy taxaw day continuer yooyu kilifa yi bu ñëwee ba jël kàddu danañ ci gën a leeral insha allahu taala kon programme bis bi ni nga xam noonu lay tëdd tey mooy ginnaaw boo xamee ne sëñ Abo Mbàkke ubbil nañu jataay bi ba noppi dinañu jox Serigne Moustapha Diop ndar mu am kàddu yu ñu tënkal yu aju ci wàllum jàng ak jàngale bu noppee ci loolu danañ ard fii benn vidéo exposé benn vidéo bu gàtt boo xam ne dafa aju woon ci liggéey yooyu ñoon def ci wàllu daara yi bu noppee ñu jox sëriñ El Hadji Ndiaye Cheikh Ndindi moom mooy wax ci turu ñi doon jàngale ci dawra bi ñi doon forme bu noppee danañ jox sëñ Mara Ndiaye moom mooy wax ci turu ñiñ doon formé bu noppee ñu jox sëñ Abdou Khadir Dia moom mooy wax ci turu borom daara yooyu nga xam ne ñu ngi leen doon defaral ay mbaar wala ay wanag wala yu mel noonu bu noppee ñu jox sëñ Mamor Mbacke mi nga xam ne moom moo jiite woon dawra takwiniye bii sëñ Mamor Mbacke bu sëñ Mourou bu sa jeng bu noppee ñu jox Serigne bu Ridwan mi nga xam ne moom moo jiite commission scientifique et culturelle bu Touba ca kanam moom day wax ci turu comité pilotage bi nga xam ne moom la ñu sampoon ngir mu saytu liggéeyub daara yooyu ñu doon taxaw euh, ñu doon ñu doon taxa taxawu ci dëkk bi. bu noppee danañ jox sëriñ Abdou Lahad loo mu wax ci turu commission boo xam ne étude et contrôle la yore moom wàllu def ay dirasa jàngat lu ñu war a def ak di ko contrôler bañ koy def. loolu la commission boobu la jiite moom danañ ko jox kàddu bu noo loolu jàllee danañu woo ndax xam ngeen ñi doon formé mat nañ téeméer nit ak ñeen fukk ñooñu ñëpp bu ñu leen bëgg a woo par kenn ñu ñëw fii fi la ñu fanante mën naa am du àgg moo tax dañ ci tànn rek juróom-ñaari nit bu defee ñoom ñooy représenté ñeneen ñi ñoo leen yóbbaale kon danañ woo ci ñi doon formé juróom-ñaar jox leen seen diplôme ak seenub jaisa bu noppee jox shahada ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jàngale ci biir dawra bi te muy juróom-ñetti nit boole ca itam sëñ eh, ki nga xam ne moom moo yoon wàllu organisation ci dawra bi ak ki nga xam ne moo jiite woon dawra ci boppam ak ki nga xam ne moo yoon wàllu contrôle ci dawra bi bu loolu jàllee danañu jox kàddu ki nga xam ne moom moo fi représenté massa taalime mooy école yi nekk ci biir Touba ki leen représenté dana jël kàddu ci seen tur bu ñu noppee ñu jox rabitatul madarisil qur'aniya kàddu bu ñu noppee itam kii fi teewal IEF bu bu Mbàkke mu fàtte chia moom itam danañ ko jox kàddu bu noppee it ñu jox sëñ Mamor Mbàkke mu sëñ Fàllu mi nga xam ne moo jiite daara alxuraan ci Touba bu noppee nag kii wax ci turu Touba ca kanam moom mooy ñëw wax ci turu Touba ca kanam bu noppee ki fi sëñ Muntaxa Mbàkke yabal dana ñëw wax ci turu xalifa général des mourides tëj jataay bi ñaanal mbooloo mi kon loolu mooy programme bi tey ñu ànd ci ak sëñ Mourtada Mbàkke mu sëñ Njoogu incha moom la ñuy bàyyee mu joxe parole yi di ñaan mbokk yi rek képp koo xam ne kàddu ndax parole yi xaw naa bare mu dimbali ñu ci lu mu ko gën a mën a tënk moo ci gën xam naa man sax guddal naa waaye man dama doon lim programme moo tax waaye ñ sama ginnaaw ñu tënk kàddu yi bu baax a baax sëñ Mourtada tatafadal maskura asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi dellu di leen nuyu bu baax a baax ci tuuru al na al ilmiya wa saqafiya ak ci tuuru ah, hay'at tansim haasi dawra dawra takwiniya xanaa ngir njëkkante waxtu wi dañuy gaawantu rek ah, tàmb dugg ci liggéey bi joxe kàddu yi kàddu gi nga xam ne moom lañuy ñuy njëkk a joxe nag ah, ñu ngi ko jagleel al ustaaz sëriñ Moustapha jóob Ndar ah sëriñ Moustapha Diop Ndar dafa am liggéey bu am solo bu mu def ci dawra takkwiniye bi bokkoon ci mu kaw yi kawwiniin ñi nga xam ne ñoo doon formé waaye itam defaloon ñu benn muhaadara bu ama am solo bu fekkee ñu ngi koy fàttaliku fee ci kër Cheikh Mouhamadou Mourtada ci jumaa ji ah mu muhaadara ba amoon solo lool nag ba tax bokk yi doon sàkku mu am ci ay ay ay nuqat ay tomb yu nga xam ne yu ama am solo la mu mu ñëwaat ci bu baax a baax ndax ñu gën koo mën a jariñoo kon euh, du ñu guddal dañ koy daal di jox kàddu gi sëriñ Moustapha Diop Ndar bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu xaq di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi kilifa yi fi teew di ndokkeel ñépp ci weeru mag wi di weeru Cheikh al Xadim di weeru safarul xayr yàlla nañu àgg ca bis ba ak jàmm te lépp luñ ci wax lépp luñ ci jëf lépp luñ ci yéene suñ boroom nangu ko te barkeel ko ñu ngi nuyu bu baax euh, daairat Tuuba ca kanam ci njiital euh, Cheikh Habib Mbakke ak mbooleem ñi ànd ak moom liggéey bi di nuyu it Sëriñ Mamoor mi jiite lajnatu saqaafiya wal ilmiya di commission scientifique bi ak mboolem ñim àndal euh, liggéey bi di it euh, nuyu ak di ndokkeel euh, mboolem almukawinuun moo ñi nga xam ne ñoo doon formé bokki sëriñ daara yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel formation bi am na solo damay wax ne tuubaa ci kanam euh, jam na euh, jam na njum la ndax li mu sémb ci waaru forme sëriñ daara yi loolu dafa méngoog ak li cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké woote ndax cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké damay wax ne bi nga xamee ne samp na naalam bii di daara ju mag ji euh, tàmbalee ci njàngum alxuraan ba ca kaw damay wax ne bu dee ci daara alxuraan ji dafa mel ne indi na réponse indi na tontu ci laaj boo xam ne jamono da koo samp ci ëttub njàng mi waaye rawat na ci ëttub njàngaleem alxuraan mi Cheikh mu taxa indi ci tontu lu mat sëkk ndax coow lii mi ngi ci li ñuy wax daara moderne wala bokk modernisation de daara te mooy euh, yeesal daara bam jamono yeesal daara bam jamono ñu koy wax daara moderne wala bokk modernisation de daara kooku concept la boo xam ne aw déggin la woo xam ne ba léegi leeragul woon ci boppi yi nga xam ne ñoo ko seq euh, état bi cik wetam moom mi nga xam ne moo yilif njàng mi euh, li mu wax ne mooy daara moderne wala jëf yi nga xam ne moom la lay wax ne mooy modernisation de daara euh, déggoogu ci ak ñi nga xam ne ñooy sëriñ daara yi nekk ci terrain bi ku ne ci ñoom ñoom ñaari wet yooyu ba tey ñu ngi wax di joxlante waaye defaguñu ëpp dig amaguñu déggoo ci lan mooy daara moderne wala lan mooy modernisation de daara wax nag Sëriñ Muntaxa ci daaraam ji lay joxe tontu bu leer daara moderne day yeesal nekkiinu dongay ñu dëkk ci dëkkuwaay yu baax dëkkuwaay yu set dëkkuwaay yu ñu nos di njàng-njàng mu baax mu ñu planifié ci ay at wutal ko ay objectif di ko xayma ci étape bu nekk wutal ko fu mu tàmbalee te wutal ko fu mu yem dongay jàng yi ñu mettre leen ci condition yu baax ci wàllu lekk gu baax ci cet gu mat sëkk ak wér gu yaram ak ñoo xam ni dañuy liggéey ci ñoom di leen contrôler kon gis nga ci wàllu cadre de bi defar na ko wàllu pédagogie bi defar na ko ba mat sëkk dugal ci li démb xamoon ci jàngu alxuraan te mooy wattu ko wattu gu dëgër ak bind ko mu indi waj tey jii li nga xam ne mooy jàng ko ci tajwid jàng ko ci maxaaraju xuruuf kooku kon lu bees la defe naa ne kon loolu tontu bu leer la ana daara nuñ koy moderne ana lan mooy modernisation de daara kon bi Touba ci kanam jóge moom it dal ci formé ah kay kooku bi ngi bay ci waar bi sëriñ bi xàll te mooy waajal sëriñ daara yi moo xam ñuy jàngale ci daara jooju la moo xam ñuy jàngale ci seeni daara waaye jot na ñu waajal leen waajtaay yoo xam ne day tax seeni man-man gën a yokk seeni xam-xamit gën a yokk su boobaa seen réussite ci mission bi rek nekk réussite boo xam mooy gën a assuré kon foofu moom euh, ñu ngi leen ci jaajëfal ba baax te di leen ci kañ formation dafa bënta ñàkk bépp métier bi doomi aadama def war na ci am formation ndax formation mooy dox jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudde ci xadis yonent bi dafa wax ne inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqina yàlla suñ boroom dafa bëgg aji jëf ji buy jëf lu mën a doon na ko xereñ na ko xereñ li ngay jëf na nga fexe ba xereñe ko kon formation mooy rekk di dox ngir xereñe saa su ne ngay gën a xereñe li nga xam ne moom ngay liggéey kon loolu ci gàttal mooy formation soo demee ci jublu moy ahdaaf wala objectif yi nga xam ne moom lañuy wax ne mooy objectifu formation dañuy wax ne mooy al ilmaamu bi taraiqi tarbawiyat al xadiisa wa taaziz xibraat al muallimin fi majaali taxasus wa tabsiruhum bil mushkilaat al taalimiya saa xal wasaili xalliha luy loolu ñetti poñ la benn jublu gi mooy euh, ñiy liggéey ci jàngale maîtriser yoon yu bees yi nga xam ne moom la ñuy jàngale muy benn ñaareel bi mooy yokk seeni seen expérience kenn ku nekk ci majaal bi nga xam ne fànn gi nga xam ne mooy sa spécialité yokku ci sa expérience bi des mooy maanaam wan la lan mooy ay jafe-jafe yu la mën a traversé ci sa liggéey bi ak su la traversé nooy fexe ba rek la ko ba mën a jàll bu ñu seetee loolu muy jublu ci formation damay wax ne kon rawatina kon kuy liggéey ci alquran karim rawat na sax ku yor daara yu mel ne suñ daara yii ndax suñ daara yi objectif yooyu nga xam ne moom la ñu tudd ne mooy moo tax formation jub ñun dañu ko jublu ba noppi dañ koo am ba noppi wañu ko yokk ci yeneen ndax ñun bëgg nañoo jàngal xale bi bam tari téereb yàlla bi te it jàngal ko njàng moo xam ne qualité la bëgg nañ ko yarit ci jikkoy lislaam yi ba mu yaru ñu nit ñoo assuré ak dundam lekkam ak naanam ñoo ko assuré ñu nit ñoo assuré ab dëkkuwaayam mu war a dëkk ci ay barab yoo xam ne barab yi yàlloo dëkk la ñu assuré ak wér-gu-yaramam kon bu fekkee ne am njàng nga boole ci yar nga boole ci assuré dund nga boole ci assuré ak set boole ci assuré wérgu yaram yow sa responsabilité rëy na yow ku soxla moo sa waxtu nekk ngay yokk ci sa fànnu liggéey di ci yokk ay moyens matériel waaye di ci yokku it ay moyens xam-xam ba tax nga gën koo xere ji daara dafa soxla woo lool formation ngir juróom-benn tomb yi nga xam dama koy tudd gàttal ko benn bi mooy xam-xam mooy alxuraan ñu di ko jàng di ko mokkal di ko bind nekkoon na fi waaye dafa am lu yees ci fànnuk jàngale gi mooy maxaaraju xuruf dugg na te dootul génn tajwid dugg na te dootul génn jàng alxuraan ci riwaaya sàngam warsh wala xabs wala leen dugg na dootul génn te it gannaaw dootul génn képp ku ne ci waar wi war ngay fexe yow yooyu nooy def ba maîtriser ko ndax mooy tax buñ doxee ba ca kanam lu jamono posé su boobaa cib laaj nga mën koo tontu ndax damay wax ne dañ dem ci kanam tuuti daara joo xam ne doo jàngale tajwid soo wëttuwul da nga wéet ndax ñiy jàngale tajwid day mujj waajur yi dañ koy xam actuellement waajur yi xamaguñ ko ñun ñoo ko xam ñoo dang dong yi ko jàng des na tuuti waajur yi dañ koy xam su boobaa dañuy seeti ana jan daara mooy jàngale tajwid ndax loolu jamono galgalub jamono bu mu rof la te dootu ko rocc mukk kooku kon laaj na formation laaj na ilmu tajwid bi nga xam ne alhamdulilah rabbil alamina doon nañ ci former nit ñi ci dawra bi li ñuy wax saqaafatu sura jamono dafa indi li wax culture de vitesse nit ñëpp léegi dañuy dund ak gaawantu tey xale bi jàng waajur bi da ko yàkkamti mu yàkkamti boppam ndax lan amaana am leen lu koy xaar bëgg naa dem ci école yi jàng ngir am diplôme wala ñóbbu ko mu tukki wala mu dem ci métier wala waajuram xam ko dugal ko ci ab liggéeyam kooku kon kuy liggéey ci moom war ngaa seet yoon yu gaaw yuy tax mu mokkal am te it mokkal ga dëgër kooku li ko tax tahfiz mun ci mënu ci ñàkk kooku bokkoon na ci li ñu formé nit ñi bi des mooy almu nafs almu nafs mooy xam nooy jëfanti jëmm ji nga xam li wax mu mooy màgg ak màgg gu nekk étape bu dee lu mu laaj xam ni wax al furuqul fardiya mbooloo mi nga yor kenn ku nekk lu ko wutaleeg moroom ma kenn ku nekk noo koy entretenir bi def ci moom xam-xam ci anam yu gën a jàppandi kooku mooy almu nafs kooku mënta ñàkk ci euh, liggéey bi naka jëkkit li may tudde saqafatul madda jamono indi na fi culture matériel nga xam tey ay valeur la ak i xalaat ñu wax liberté liberté xale yi di wax àqi xale yi gis nga li ay loi ci boppam loi nationale di ko renforcer média bi di ci wax mooy indi coow li nga xam ne tey moo moo ne ci daara ak digganteem ak état wala digganteem média bi kooku it laaj na nit ki am xam-xam li may tuddee fiqhul waaqi xam boobu xeex boobu jàmmaar lu nga xam ne lii culture européenne la ak seeni valeur ak ñu nit suñu culture suñuy valeur ñu bëgg a xeex suñu daara yi dajji ko di ko nasaxal nu ñuy def bana jàmmaarloog moom kooku laaj la nga xam fequl waaxe kon naka noonu it nga xam ne mënta ñàkk ñu organiser xale yi ndax may wax ne kër yi fokk mu niroog daara yi ci wet yu bari daara ji doo ko nekk barab boo xam ne gone gi mën na fee nekk kër yi macha allah dund gi gën naa baax cet gi gën a am ah euh, mu gën a yemb ci ay dëkkuwaay kon it nañ fexe daara ji moom it mel noonu daara ji nañ fexe ba gone gi di am lekk gu set te lekk lekk qualité nañ fexe ba nga xam ne ak cetam dañ koy assuré nañ fexe ba nga xam ne maanaam wér gu yaramam dañ koy sàmm nañ fexe ba nga xam barab yi muy dëkk di ci yendu di ci fanaan ami wan ak ami ami ami jàngukaay day yell kooku mënta ñàkk su boobaa kon idaara ilmul idaara daal di wu ngir euh, sëriñ daara bi am ci formation kon mi ngi noonu kon fànn yi nga xam ne ci lañ doon def formation yi te daara ca kanam Euh, woote woon ko benn bu ci nag munta ñàkk ci jamono ndaxte moos mission bi nga xam ne moom lañ yor yàlla def ñu man koo topp ci anam gum gën a rafete ba mu àgg ci fa mu jëm te mooy téere bi dem ca kaw dem ca kanam yal na suñu borom yombalal nu ko yal na suñu borom yokku leen kattan yéen ñi nga xam ne yéen woote woon lii def yëngu gu barke ci barke bi sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ ñu ngi lay sant bu baax a baax gàtt na waxtu wi moo ñu tënk moo tax ñu soññ ko mu gën koo gàttal waaye solo si moom foo ko takk weesu na ko ni mu ko waxee rek euh, toll nañ ci àdduna foo xamante ne nii lépp lu doomu aadama di def moom làmbatu waratu caa am dafa war a doon loo xam ne da koy xereña xereña ga ca war wala boog kemtu layal kàttanam kon euh, mbokki jàngalekat yépp war cee bàyyi xel jàngale day métier mu jafe di métier moo xam ne dafa laaj li ñuy wax at-takwin al-mustamir maanaam formation bu continue boo xam ne du jeex mukk ndax doomu aadamaa ko tax a juut te doomu aadama moomu ni mu ko waxee day soppeeku ànd ak ni jamono di soppeekoo kon saa su ne jàngalekat bi moom lépp luy xew ci ci jamono ji rek loolu mu tuddee fiqhul waaqi' mu xam ko mënta ñàkk ginnaaw bi mu xamee adawaat yi nga xam ne mënta ñàkk ngir mu mën a jàngale ci lu jëm ci turuqu tahfiizul quraanil karim ilmu nafsi tarbawi muy psycho psychopéda ak lu jëm ci al idaara al madrasiya ak yeneen yi aju ci yooyu yëpp nga xamante ni euh, ki yore daaray alquranul karim daf ko aajowoo kon sëriñ Moustapha ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm jasaakumullaahu xayran waaw euh, xam naa ngir gën a ci liggéey bi euh, waxoon nañu ne danañ fi gaaral benn vidéo boo xamante ne nii dañ ci wone liggéey yu am solo yi nga xam ne Touba ci kanam xam gi mu xam ne liggéeyal Serigne Touba dara jiituwu ci alxuraanul karim ba tax mu sasoo at mu jot mu fas yéene liggéeyal daaray alxuraanul karim yi taxawu leen ci yi nga xam ne mënta ñàkk te tànnoon ren lu toll ci juróom-ñaar fukki daara ngir defal leen ay marafiq mu yu nga xam ne kër kër rek mënu koo ñàkk waxuma la ak daara moo xam mbaar mu muy jàngee la wala ay wanag ak yi néeg euh, mu defaloon leen ko bu fekkente ne loolu jàpp ne na kon ñu ñu gaaral ko mbokk yi ñu bokk ko seetaan bala ñoo jàll ci kàddu gi nga xam ne alhaaji sëriñ euh, alhaaji Ndiaye Cheikh Ndindi moo koy jottali ci turu formateur yi nga xam ne ñoo doon taxawu euh, kii ñi doon ñi doon jàng